tey euh, Ousmane Ousmane Gueye lañ fi am Ousmane ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la dalal suñu plateau. maa ngi delloo ziar di nuyu ñëpp di jëtal nuyu ci président de la fédération sénégalaise de Kung Fu Siteu Ndiogou di nuyu sama waa Saal kën Fu Club doomu Tëngéej bi ma jógee maa ngi nuyu ñëpp képp kuy def monde à martial merci. waaw président Ndiogou moom la ñu nuyu parce que moo ñu boole. waaw vidéo bi c'était en deux mille vingt deux. Hmm. ci Amérique quoi benn sport bi am foofu bu ñu koy woowee Zomondio. wala woon c'est la première fois Sénégal participer si. ok compétition bi Sénégal yi ñaata la ñaata ngeen woon foofu bi ngeen demee. mais noonu man maa demoon pour représenter Sénégal. ñaata pays ñoo participé woon. bari na de Afrique moom deux pays kese ñoo nekkoon Sénégal ak Égypte kese. Sénégal ak Égypte ñoo demoon. Mhm. d'accord léegi yow euh, art bi ngay def mooy kung fu kañ nga si tàmbalee. waaw maa ngi maa ngi commencé sama carrière en 2016 laa dugg. 2016. ma commencé compétir 2017. Euh, hmm. yàlla def may ramper si catégorie junior bi. mais bu dee catégorie senior bi 2021 laa dugg 2021 laa dugg ci équipe nationale bi 2021 laa euh, participé championnat du monde virtuel euh, nekk ci médaille de bronze. 2022 hmm. ba instant bi 2023 bi. yow ak ñoom Matar Bari yéen a defandoo woon kii bi. waaw waaw sama kuréel waaw Matar invité woon nañ ko fi moom. Hmm. léegi euh, kung fu bi yow ban style mooy sa style carrément ci kung parce que bu ñu gisee fii gis nañ ne nancuan ngay nga nga travail mooy les styles du sud quoi style mm. Bruce Lee yeeg affaire yooyu. Ah, mooy mooy côté nancuan <laughs> léegi waaw. man moom boo xoolee bi may door commencé sax ñoom euh, ci cangcuan bi lañ ma lañ ma basé woon. Chankyon mooy style du nord. mooy côté nord bi ay comme mm. Jackie Chan. Ah, jet li affaire yooyu ñoom ñooy def Chankyon quoi. Mm. léegi ñoom bu ñu xoolee sama météo bu mu xoolee xool xam ne sama yaram mënul ànd ak loolu ak ni ma dëgëree. Mm. léegi si la ma def si la ma defal transfert quoi mu yóbbu ma ci Nanchon bi. ok léegi euh, si Nanchon bi euh, nan nga fi nekk nekk champion Sénégal. waaw nekk naa championnat Sénégal deux fois. nekk ci vice champion Sénégal. deux mille dix neuf léegi Sénégal champion gagné nga euh, kii fii compétir nga fi. niveau africain compétir nga. noonu non parce que parce que au niveau africain. non non ok léegi euh, say euh, yéen yaa ngi waaj pour def championnat d' Afrique. incha allah. Ah. Mm. mais am na ñeneen ñoo xam ne nekkoon nga fi ñoo xam te ni ñoom am nañ champ jël nañ champion d' Afrique. waaw waaw sama idole Mamadou Saliou Touré Mboraxe. ok moom champion d' Afrique la ak yeneen gars yi ay Ablaye Diouf ak. Ah. bari na daal ñoo xam ne jaar nañ fi. waaw Ablaye Diouf aussi ñëwoon na fi moom aussi waaw. Mm-hmm. Mm, waaw. voilà Saay. Euh, gis nañ euh, li nga xamante bi nga demee Amérique euh, am ngeen fa loolu am nga fa médaille bi mooy kii bi ngeen mën noonu non amu fa médaille kon dafa mel ni fédération bi yoon am na raison de parce que le fait que est-ce que jàppale woon nañ la bi ngay dem tamit jàppoon nañ ci pour nga dem représenter Sénégal wala yow da nga pour représenter sa bopp rek kan moo la yóbbu ak noo def ba dem. non fé liggéeyu fédération bi la. fédération bi ñoo la yóbbu. ñoo ma yóbbu waaw. ñoom ñoo la yóbbu yóbbu kenn kese. ah. loolu nu mu par si nekkoon par évitation parce que bu ma juumul am na ñu ngi doon sama côté sax mu jëwu dem. sa côté mu jëwu dem. kon yow cundum yaa dem. man maa dem ak suñu président fédération bi. te ah. moom boo xoolee bu mu demee foofu. Hmm. comme réunion bi nga xam ne moo war si jeux olympique de la ah. jeunesse bi door a ñëw. Hmm. moom looloo taxoon bu ma bëgg a dem. bi nga ñëwee jox nañ la dara bi kan ministère wala fédération. ministère ak fédération yëpp. non bu dee ministère moom jotaguma ci moom dara mais bu dee fédération moom waaw yàlla baax na jox nañu ko. yàlla baax na nga <laughs> yow mooy parce na waaye yàlla ma jaaxal. yàlla euh, yow. <laughs> moom dafa mel ni. moom ku gëm yow ku gëm këm fu nga parce que li tax man damay gis boo yoo xam ne yow buñ demoon Amérique duñ ñëwaat. Ah, ah. <laughs> ma ngay yàq carrière am ba léegi ñu mooy kaas ñu ngi mooy kii loolu waaw ñu ngi mooy ruube naan naan naan ma yow bëggoo bëggoo teeg waaw nag nga demee ba Amérique di ñëwaat lu nga lu tax nga xam na si non xam na si fédération ko yóbbu waaw fédération ko yóbbu d'accord moom kay xam nga dem na ba ñëw kii moom am na ngëm-ngëm <laughs> <laughs> bu tax bu tax mu del si waat yaa ngi dégg mhm. mais am na booy yu bari yoo xamante ne bii tey bu ñu newoon cuux ba dem Amérique dootuñu dellusiwaat fii. dëgg la léegi yow ban gës yëg-yëg lan moo la motiver ba nga dellu si waat. ah dama xam ne yàlla dafa defoon du may door a compétir. waaw man yàgg naa rêvé dem Amérique mais foog ma woon ne kën fu wusu bi moom ma yóbbu Amérique. Mm-hmm. xam nga damay liggéey gëm sama bopp yàlla def man ba ma koy bañ ma koy wax sax amaa ñoom dañ ko doon jéem a nëbb. Mm-hmm. yóbbu lañ ma ay test ma ay test vaccin Covid lu ne mais. laa mesure ci laa xam ne Amérique laa jëm ma yàlla na ma xam ne tôt ou su ma demee ñibbi sax yàlla mën a def ma delluwaat. maa ngi sant yàlla dem naa gars yi may nañ ma sama visa am amul ma yaakam daal maa ngi liggéey waaw waaw am naa sama visa ma mën naa dellu parce que mën na fa dem tagga témbe saa comme li nga wax yàq carrière am yow war na di mën a pratiquer légalement yow yow teeso mauvais conseil yow bari na ay nit ñu yi doxul fii <laughs> waaw loolu moom leer na loolu ñun xam nañu affaire bi doxul fii parce bi ñu demee bi ñu ñun ba ñuy compétir bu ñu xool bañ xoolee ñoom chinois ak man sama bopp. damay xam ne niveau yi du benn. ak préparation ak préparation ak moyen. ñoom tubaab ngi noonu c'est man bu ma demee man ñoom dañu maa jaaxal mais man tamit a ba egg foofu waaw parce que dañ naan boobu ñuul bi xam <laughs> benn saa sax président daa doon maanaam est-ce doo fomb sa der bi. di kay pour ñoom ñu foog ñu foog ne man. yow da damaa ñuul nii ñu may xool regard bi nga xamante doo comprendre <laughs> mais yàlla dama ko mbir aw wala bu ma jum sama catégorie man maa mujjee sept personnes la woon mais kenn nag daa mujjee abandonné mais man maa mujjee jël sixième mais daa mel man maa jël médaille d'or bi parce que fii laa ñu ma doon tàcc di ma applaudir xam nga di ma yuuxu. di la encouragé waaw ñi la doon wax ndax doo ko foofu. ah ñoom ñoom ñoo la doon. waaw kay non sama course bi moo doon xool loolu di ma laaj na ma gars yi est-ce que jaa xooloon si dër bu ñuul bi. Ah. am na ma ko weer waaw kay sûrement loolu. mais ñoom danoo yéemu ci maanaam yow condition yi nga nekkee fii. mën mhm, a egg di compétir ci niveau boobu ñoom danoo yéemu ci loolu. dañoo yéemu ci loolu. yow yan condition nga nekkee fii est-ce que lépp ça va. waaw non <laughs> ah, <laughs> non non le fait que ça veut dire que xamoo xamoo pourquoi moo moo léegi li jaaxal noonu tam man jaaxal na ma le fait que moom mu nekk un jeune. am na ñu nekk ci kung fu bi mhm. yàgg ci mosuñu génn sax Afrique yow nga ñëw bëreet à ton âge xale nga 2016 ak léegi 2022 ñu yóbbu la. est-ce que coach yi aussi bëriwuñu lijjanti yenn yi. non c'est que su boo xoolee fii nag suñu coach yi. Hmm. dañoo am am dañoo waroon génn fe comme ba ministère bi dañoo waroon jël yóbbu leen. Hmm. Chine ñoom ñu mën a def seen i. formation def seen i hmm. pour ñun ñu mën a àgg benn niveau bi. parce que parce que amaana dañu naan nit ki da ngay gëm sa bopp mais ñoom gëm ñun gëm nañ booy yi gëm nañ coach yi gëm nañ. mais ministère bi moo taxaw di xool. mais wala nga am plus que les autres ba ñu yóbbu la lan la da nga am benn génie benn génie wala. <laughs> non de question de prier sax mais nit nit yàlla yàlla yàlla mooy def lu ne xam nga tey man kër fu bi gënuma see taxaw gënuma see aay am na ñu mu taxaw mm. am na ñu mu gën a aay mais nit ku nekk ak sa wërsëg waaw léegi sélection bi lan la woon pour dem pour bu ñuy dem parce que boo xoolee ci championnat du monde virtuel yi si boobu lañ jógee parce boobu noonu laay door dugg équipe nationale. si 2021 tax ma laaj ko parce que ndax dem na championnat d' Afrique def na championnat afrique parce que am nañ déjà ñoo xam te nekkoon nañ champ def nañ champion d' Afrique plusieurs fois ak yooyu moo tax. parce que boo xoolee bi ñu duggee championnat virtuel yi. Mm. bi ñu bi ñu duggee bay génn ba nga xam ne ñun ñu ñu war a remise suñu diplôme. Mm. man du man mais fédération bi ñoom ñoo wax ñoo man maa nekk athlète boo xamante amaana ñoom gis nañ ci man détermination. Mm. man damay dugg ba mu jeex. du ma du ma ragal du ma bàyyi. tricher quoi du ma tricher merci. léegi nag xam loolu moo gën a yokk samay code. xam nga ba gars yi def seen sélection ñu jël ma sélection am pour ma mën a ñëw. Mm. participer si compétition boobu noonu. léegi sànq da nga wax JOJ yi ñu jëm deux mille vingt six ans. Mm-hmm. Euh, tu es boobu boo xoolee pour jeunesse bi la. yow amoo da nga âgé bi man âgé naa rom senior laa. <laughs> Eh, léegi culture bi culture bi léegi à part <laughs> eh, nga si nekk athlète eh, athlète nan lay nan lay entraîner nan ngay entraîner yow. ah waaw question bi moom nekk na loo xamante ne même bi ma demee foofu sax am na tubaab dañ xam ma ko laaj waa hmm. dañu man nan laay entraîner fii mais ñun boo xoolee ñun amuñu noppalu. liggéey man soudeur laay liggéey parfois ma dem ci maçon parfois ma dem ci plombier bi. mu ah. ngi noonu loolu douze métiers. Ah, fu ne la ñuy dugg. yaa ngi ci soudeur maçon plombier. dem naa sax def naa sax géej moo sax def naa ko. Ah. moo sax def naa ko lépp laa. yow non non non non yow yow yow yow yaa sa papa. sa papa mi maa ngi lay nuyuwaale bu baax ay joon yu wóor dellu <laughs> lu tax muy del si waat am mais non non non non non li mu xam naa xool na aussi visa bi mu am xam ni mën na ñëw liggéeyaat ba li muy liggéey yóbbu ko ñëwee dellu non bu ñëwee def nii dafa waroon liggéey ah, bu ñëwee dooleel kan non gëm-gëm mooy moo la yóbbu fu nekk rek waaw kon yow da nga passionné gëm ni war nga tekki ci Euh, yaa kën fu bi man loolu yaa gën a. nu mu tekkee kën fu bi moom yàlla def na ne waaw dinañ ci dem ba jeex lu ñu am jël. Mm. parce que bu ñu demee condition boobu yàlla nekkuñu première nekkuñu deuxième nekkuñu troisième mais bi muy ñëw foofu noonu Canada lañ tànn man maa représente Afrique ak kenn ku représente France kenn ku représente Brésil ak euh, ak Chine. Mm. ñun kàddu ñu lañ tànn boo xoolee vidéo bi sax photo bi mu ñëwee fii tamit ñi ko accueillir si laa bokk moom tamit conseil na ma ñaaxaat ma dama gën a góorgóorlu gën a liggéey. boo yow est-ce que xam nga ni sans su médaille nga pour Sénégal est-ce que yow bu la préparé woon yóbbu la ay stage dem jàngal yokk sa niveau boo la ay coach yu baax hmm? comme jooju yi âgé nga mais am na yeneen compétition mondiaux yi am ah, est-ce que yaakaar nga ni yow bu la yóbbu woon mën nga indil médaille Sénégal man yaa gën a pare na pour l'instant nii version rouge bi ak étoile bi mais le talent le talent ne suffit pas lan nga soxla pour egg benn niveau bi. waaw man soo namaa lan nga soxla day mel ne man ngay waxal da lan ngeen soxla. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw waxal léegi nga boo nee lan ngeen soxla day fekk ne ñun presque boo xoolee ñi ñëw fii ñëpp ñoo bokk li ñuy jooy. Mm-hmm. Ah, at la képp kuy def avancé ku ñëw fii ñoo bokk li ñuy jooy finance financement rek lañu amul. soutien loolu rek lañu amul parce que bu ma jógee foofu ñëw ba léegi nii amul kenn ko ma oo amul kenn ku ma oo ne ma ah lii la maa nga teg te yàlla def na ne boo xool bi ñu jógee ci loolu gars yi dañu doon fal meilleur at meilleur athlète ci mois de kii bi euh, mois de décembre man man lañ ko fal au monde entier bii tamit dañ doon defaat dañ doon defaat meilleur athlète ci mois ci année 2022 bi man bokk naa si candidat yi dix personnes la ñu woon sama catégorie quatrième place laa jël par vote la woon hmm. am naa dix mille et quelques votes te boo xoolee na man maa ci nekkoon nit ku ñuul ci fii nii ci Sénégal ci man loolu tax ma yow am nga lu ñeneen yi amul pour man hmm. jàppale moo des non loolu parce que ñi la tànn tànnuñu la pour tes beaux yeux mais. Mm. xam naa ni am na lu ñu gis. Mm. waaw léegi waaw léegi nag blocage bi que li saa wax tamit dama ci xaw ànd parce que man dama daan gis ci karaté bi. à Guédiawaye am na ñoo xam tey jii ñu ngi en France ñu ngi ci yeneen ah, réew. daaw rek mm. daaw voilà mais mais mais bi ñu demee mais mais mais daaw ba di box bi non dama lay jox benn exemple man waxuma daaw. Mm-hmm. mais ñooñu doonoo dem. condition yi moo gën a baax. fa la nekk liggéey liggéey. mais bu la neexee mën nga liggéey foofu ba pare. Ah. ñëw ñëw porter mooy Sénégal. Mhm. pour dem compétir Sénégal comme le grand le grand Balla Balla Dieye. nekkul woon Sénégal n'est-ce pas. mais pourtant dafa dem uti ñëw porter mooy Sénégal man gisoon naa nga dem toog fa. ba dëgër am ay moyens ñëw ñëw sol moyen Sénégal dem gagné ji. bëgg nañ loolu ah? incha allah parce que au moment où nga ni li li ñuy jooy yëpp benn la. Mm. kon le problème fii réglé wuñ ko. xaaral dëgg ma ne la fii nii fii. bu dee entraînement coach yi ñu ngi teg fuñ lu ñu war lu ñu war def ñoom ñu ñu ngi koy def di di nuyuwaale suñu suñ ko si bi Babou Samb ah daw waay mais gis nga mais gis nga mais gis nga <laughs> yow bu ma dawoon yéen bi ngeen tabaski man maa ngi entraîné tu n'es pas professionnel bi ngeen bi ngeen tabaski mardi bi ngeen doon tabaski man maa ngi entraîné mardi boobu fan ah. mooy bi ngeen tabaski fii ah, ren préparé woon sa voyage waaw instant maa ngi ah, ah, moom loolu nga loolu athlète un athlète moom da ngay da ngay entraîné carrément parce que bala nga am yenn talent yi moom. foog nga daj lépp ñii ñi foog waxuñu la dof dof nga <laughs> kii mais yow daje nga ak yow chinois yi daje nga ak américain daje nga ak ñeneen ñi mm-hmm. foofu gis nga gis nga talent foofu tamit nga gis ne ne chinois yi presque talent moom bu dee si wuusu pratiquement ñoo ko si àdduna bi bu dee moyen am nañ ko mhm. voilà yow yan yoon nga xalaat ne man nga fa jaar pour man a pour mën a gagné titre waaw titre mhm. mooy mooy ñëw parce que yombut si ku moom dëgg la mais amaana li ñu lépp liggéey la mhm. nit ki moom lépp loo liggéey rek parce que man boo xoolee man li ma préparé fii li ma doon entraîné ak bi ñu demee foofu bokkul man fii impose laa laa doon laa doon préparé muy maanaam gaaw ji yeeg yooyu noonu. man ba demee si ñoom ñoom optionnel lañ préparé. man su ma doon préparé fi optionnel. Mm. man ma ma fekk leen foofu du ma génn si quatre premiers yi. parce que ba ma leen gisee man dama xam ne ñii ëpp ñu ma niveau ay jàppale rek la ñu ëppale. mooy mooy am na information boo xam te ne amu leen ko avant ngeen dem. waaw mooy parce que yaa yaa ngi préparé lenn benn style bu xaw a kawe mooy gaaw gaaw chinois mooy lu kawe quoi. Mm-hmm. ba pare aussi ak optionnel ñu jàppale te optionnel moo notam moo mooy gën a yéeg waaw euh, yi def ak façon ak ak gaaw bi ban différence nga nga am foofu parce que optionnel day nekk loo xamante ne ay schéma yoo xamante ne ñoom duñu la posé posé schéma mais dañu naan la bu fekkee da nga def un boo balaa ngaa dem trois da ngay dem deux ba pare da ñoo lay proposé ne lii da war a bokk lii da war a bokk lii da war a bokk waaw te yàlla def na ñun fii commencé commencé man mi sax commencé gum ñu woon loolu waaw moo tax dama doon rey sama bopp mais bu ñu demee ba fee gars yi dañ ñëw kii dañ ko léegi dañ ko indi comme athlète boo xamante participant la hmm. ñoom ñoo ko wax fédération internationale ñu ne comme hmm. comme jeux olympiques 2026 Sénégal lay amee nañ jéem a ñëw xool niveau bi hmm. mais bu ma yéegee wàcc ñoom ñooñ dañoo validé dañ ne comme Sénégal moom mi ngi door a bokk ci jeux olympiques jeunesse yi euh, surtout côte fu wuusu bi kon amaan Sénégal war na ko mën a organiser. ñoom ñu confirmé loolu. booy yi nga gis fii am nañu chance médaille pour 2026. 2026 booy yi fii tarak yi nekk fii ah. non man keroog damaa yéemu ça xaaw ah, ñun ñi di compétir senior ñun booy ñoo ñoo ñoo ñu gën taxaw. Hmm. mais daa am benn affaire boo. mooy junior laaj mooy minime. waaw ah, minime minime dañuy nekk ba cinquante trois personnes. dañuy yéeg yéeg ba yow yow da ngay xool boo xool ñoom ñëpp ñoo bokk. li ñuy def. mais Pape Pape Pape da kaa souligné. c'est technique. Mm-hmm. Pape moom gën a mën xaw man xaw ma quoi. Mm-hmm. mais sànq da nga ne boo demee ba egg fee le niveau da ngay am yeneen système yoo xam ne dañ koy teg. da koy teg te eggoo fa. Mm-hmm. mais bu dee ni ñooñ dañoo ñëw ak niveau boobu ñëw fekk Sénégal fii. yow sénégalais ñoo lay yéem mais bu ñëwee ñëwee ñun duñ am sens. no bu dee pour le l'instant nii. booy bu xale ñoom egguñ niveau boobu. ñoom boo xoolee ay cuji ay cuj ñoom ay cuj ay cuj la ñuy liggéey. Ah, même boo xoolee championnat du monde bu mujjee am ci junior gi nii Indonésie. Sénégal war na mën a participer mooy élémentaire Sénégal. Sénégal war na mën a participer championnat du monde na fa mën a dem. mais ministre yi préparé jardin ñee nekk gi. waaw comme noonu. waaw c'est-à-dire que ah, cuujii si chinois mooy mooy élémentaire quoi ah. yaa ngi si élémentaire parce que fii nag ay jamono moom la gars yi tegoon ci kaw parce que dañ si doon door a jot hmm. fekk loolu mooy élémentaire boo waxee cong ji mooy ah, milieu moyen <laughs> kon cuuj yi nga ne man maa ngi maa xale yi la doon xale yi xale yi ñoo ci cuuj yi mais pour le l'instant nii liñ naan chinois ñoom ñoom duñ préparé dañuy pare waaw voilà ñoom duñ préparé ñun dañuy pare ñun dañuy ñoom dañuy pare. waaw. baax na c' ñoom instant bii nii. sabra du monde war na am. ñoom pare comme ñu ngi koy ñoom liggéey nañ ko bu yàgg. ñun ba léegi nii ñun. yéen a ngi da ngay parfois mën nga <laughs> liggéey. tawul leen moo tax bu ma jubul ñoo daw ni ñu <laughs> bu ma jubul Japon la xaw ma ci. bi nga ko jox voilà. mais vraiment gi nga liggéey di wax nii ah. bi mu jeexee xaw ma Japon xaw ma. damay seetaan télé tubaab bi quoi tubaab bi jeu bi jeexee. ñoom ci lay waaj pour quatre ans waat nii. alors que ñun ngi noonu a instant bii boo xoolee ñoom da lay leer ne commencé nañ jël seen ñi nga xam ñoo war a participer aux olympiques 2026 commencé nañ ko liggéey ba commencé jël commencé di former booy yi ñun fii boo xoolee la moo ñu sonal booy dañuy dañoo dañuy màgg ak précoce am nga ñoom bu la wax man man li ma gàtt gàtt nii ma taxaw benn sio maa ko sut te fii course bi lañ may woowee mhm. moo tax ma tey jii nii amaana booy ñun xale yi bëgg nañ mag ñi bëgg nañ mais financement bi moo des. moo des jàppale bi. finance jàppale bi moo des ñun bëgg nañ dañoo bëgg bu bëgg ak am nañ talent bëgg nañ am nañ talent. Hmm. te gëm nañ suñu bopp. mais loolu rek loolu rek moo ñu manqué. loolu rek préparé da ngay xaar fii mu ministre des sports bi la bi la di. mu ngi leen doxam bu ngeen demee xanaa Bambey ngeen jëm wala. <laughs> dañuy dañuy sërëmal ci yenn <laughs> yenn affaires yi quoi di jox yenn affaires yi fekk na ñoo ngi lay préparé suuf parce que chinois yi moom booy boo fi demee si ñoom ñu travail wala tubaab yi wala mm. Russie. Russie sax mm. ils sont excellents. Mm-hmm. parce que waaw xanaa si combat peut être sénégalais mën nañoo débrouiller si. waaw bu dee parce que fii boo xoolee ñu loolu moo ñu sonal gars yi dañuy entraîner ah, di préparer championnat ba mu jege. Hmm. nga jege saa yi du nga dégg saa yi ñu ne non non hmm. parce que ministre bu tontu woon ak lii nii. Ah. ñu fi bëri na. waaw ah, loolu xam nga. aar yu bëri ñoo xamante ne dañuy préparer ba nga xam ne ñoom ñu ngi. Hmm. mooy tuuti leen du ñu dem. mais da ngay gis ne noonu mu jëlee. mais mais mais xamaloo tax yow jàmbaar nga mooy bu dee ni yow eh, eh, benn kase nga nga dem ci compétition boo xam ne gars yi dañuy dem par équipe maanaam ñi ëpp ay combattant ak ay représentant ñoo ëpp sensu médaille mm-hmm. ci genre compétition yow ya ngay dem yow boo nekkee benn nit ak loo ay ay ay ay ay mm-hmm. pour nga am médaille yow day day métti yow loolu daa yow jàmbaar nga am nga Omar beneen bi topp doo professionnel tamit xam ne un professionnel mooy koo xam ne maanaam activité sportive am muy métier mm-hmm. mais yow comme li nga ne yow li ngay daj yëpp doo ko dem mais boo eggee entraînement nga sax génneel li ci yow day jafe maçon xam nga kooku lii li yi ngay def balaa ngay def sport booy bi fi ñëwoon jeune bi fi ñëwoon maa ngi koy kii Laurent waxoon na ko hmm. boo nekkee fédération mënoo nekk professionnel c'est grave dañ lay peut-être mën ñu jox la prime ak yooyu mais du nekk sa kii da ngaa waroon a tukki de li saa man an naa ca de. voilà waroon dem doo bàyyi Sénégal mais da ngay dem te ñu yow am nga talent. nga sa bopp ñoo xam ne tey jii xam na lan la sport di jariñ ci àddina voilà ñu defar la nga ñëw gañ a média Sénégal. comme ñi xamuñu lu xew. Eh, eh, eh. booy bi day caaxaan rek. non du ah. mais. Ah, dem dëkk dëkku jàmbur xamoo fa. ban dëkk jàmbur fa ay sénégalais. bi nga demee bi nga demee nga ay mbokk. xam nga ci tournant bi sax am na lu mu doon négocier. boo woo xaw a nekk kajoor kajoor tuuti. rek kañ lay. tournant tournant boobu est waaw yow Brésil nga wax ñun ñun wala ñun dara. Eh, eh, eh, bi nga demee tournoi bi est-ce que ah, amul la ci déene est-ce que mënoo toog xam ne dafa saa ah, non non du loolu sax. parce que boo xoolee bu ma dugg raakool moom moo wax loolu. may ko ah may ma rencontré a wax loolu. waaw mu ne ma yàgg bëri na sa morom Sénégalais yoo xam dañuy ñëw fii. pour ay vacances ak yooyu noonu. état yi daw dawee boobaa dañu am problème mu këyit mu ne ma yow dara jaraloon nga daw te man moom sama xel dafa ma sa woon ay waxi daw danaa dem ñëwaat rek xalaat nga ne war nga dem demaat dem demaat quoi waaw loolu moom loolu moom insha allah ñaan ko yàlla booy man nga ah. ah. demaat mais man je crois que ñi seen visa périmé bëgguñu génn dëkk bi. dafa ñoo xam ni bëgguñu tukki. non doon na bëgg a des sports daal Omar looy tëjee <laughs> maître looy tëjee. waaw ñoo ngi lay bàyyi nga wax sa dernier mot. waaw sama dernier mot mooy. waaw di rafetlu waaw si <laughs> waaw. di rafet lu li ma la wax tamit. xel. mais su ma demee mën naa ñëwaat. waaw <laughs> di waaw di leen jaajëfal ci toogaay rafet na trop ak euh, invitation bi en même temps di nuyu tamit sama metre di ziar uh, Issa Mbaye mooy kan mooy maître Pape Diop. Pape Diop waaw moom moom amaana moom maa moom état ay morom lañ. nekk moom mu tëngëj la nekk waaw. di nuyu tamit nga xam ne mooy Issa ko moom sonn na ci man. Hmm, amaana équipe nationale la fépp fu ma mënti dem su ma ne ko woon damay ñëw fii sax. Hmm. mu ne ma am paase gi. Hmm. waaw amaana di nuyu tamit sama famille waa Ngéyel famille sama papa Ousseynou macha allah jaajëf jaajëf jaajëf. Ah, merci waaw aussi di di di ko gërëm aussi. di mm. ko di ko ñaanal. mu avancé bu baax a baax c'est un jeune boo xam te ni moo ngi def moo ngi def yoonam. <laughs> saa bàyyi ah, waaw après nga gisee ak saa. bu gisee moom de <laughs> nga xam ne bu depuis boobu moo incité pour ñu pour ñu jël ko. mais c'est bien c'est bien xale mu nekk aussi at de la nekk yooyu comme ça mm-hmm. euh, lu am solo la. en tout cas ñu ngi lay encouragé te daw dégg duma daw service bi dina la may lu ne. incha